jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi ñu santati leen gërëm leen beneen taxaw ak beneenub jàngat ci seen émission urgence ñu ñëw tey ci li leen di soxalati rawatina taxawaay bu nga xamante ni jëm na ci soxna yi ndax weeru octobre bu teroo rek dañuy gis ci lu jëm ci campagne bu nga xamante ni yeete la jëm ci wàllu cancer bi nga xamante ni day daral day faral di dab jigéen ñi rawatina ci wàllu bi nga xamante ni mooy ween loolu mbokk yi ci Sénégal liggéey bu mucc ayib yàgg loolu nit ñi xam ko bu dee wàllu kër docteur dafa fekk seet ñi nga xamante ni ñoo di association cancer du sein Sénégal nekk association bu nga xamante ni ñi ko booloo dajaloo teg nekk nañu ay anciennes malades waaye tamit am ay acteurs ak ay actrices suñu ñu daal di boole loolu lépp jëm ci nag naka lañuy def ngir wattandiku di ci wàllu prévention maanaam danañu fekk waaye fas yéene tamit. ci lu jëm ci wàllu càmbar naka la ñuy def ngir gunge yenn ci soxna yi nga xamante ni jafe-jafe ñaanul leen ko naam mais bu leen dalee ñu xool naka lañ leen di taxawoo kon mbokk yi xam ngeen ni kon ki ñu fa yéene dalal moo di présidente bi Mame Diarra Gueye kebe présidente mu nuyu la di la bàyyi nga nuyu ak suñu téléspectateur euh, maa ngi lay fay ma Moussa di nuyu téléspectateur 2S 2STV yi nekk ci biir Sénégal ak yi nekk ci bitim réew ñëpp maa ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullah. association cancer du sein Sénégal ACS2 ak 2S lëkkaloom yàgg loolu du tey ñu gis ni ci seen programme chaque fois le 30 septembre fu mu jotee di ngeen ko lancé jëm ci fa seen jëmmal weer bi yépp boobaak léegi activités yi nga xamante ni jotoon nañ ko dégg fan ngeen ci toll ak lan ngeen ci def ci weer bi. nga may ma ma santati direction générale 2STV ndax ba ñu monté association bi ba léegi ñu ngi ñuy gunge ci liggéey bi nga xam ne mooy sensibilisation sur les cancers féminins kon nag maa ngi gërëm di sant au nom de tous les membres de l'association cancer du sein et de tous les membres ak malaat yi si nekk nekk si Sénégal ñëpp nga xam ne ñu ngi leen koy xam xamleel ak population bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant waaw euh, en effet bu octobre rose euh, di waaj a jot dañuy def lancement euh, ni ki le 30 septembre dernier def nañu benn rencontre benn daje ak waa presse principalement presse santé pour wax leen jox leen suñu programme ak li nga xam ne mooy thème bi nga xam ne moom la ñuy jàpp di si def sensibilisation ak si di def lu ñuy wax plaidoyer muy thème bu ñaari thème ren ñaari thème la ñu jël ñu jël temu mu euh, euh, li ñuy wax anatomopathologie mu nekk euh, loo xam ne jàng discipline boo xam ne sa l'hôpital la nekk te mu am mu nekk loo xam ne kenn mënula la faju ci cancer te jaaraluñu la yenn analyse yi foofu ndax euh, moom mooy tax docteur yi nga xam ne ñooy faj cancer am sañ-sañ pour def li ñuy wax pour poser seen pour teg seen traitement bi nga xam ne moom lañ la fas yéene jox mhm. beneen bi deuxième thème bi mu nekk benn plaidoyer boo xam ne dañ ko jëmale ci suñu njiitu réew muy son excellence le président de la république bi nga xam ne ñu ngi koy sant bu baax nag ndax euh, daanaka ba association bi taxawee ba léegi li li li ñu fi jot a joytu muy gratuité des soin muy euh, li ñuy wax radiothérapie ak machines yu bees yi ma ay machine radiothérapie ndax bi fi nekkoon dafa màggatoon wax dëgg yàlla jàppale nañu si bu baax ba nga xam ne tey loolu moom jot nañ si te population yi ñu ngi siy faju mais nag dafa am loo xam ne dafa des loolu nag moom la ñu teg ren pour def ko daal pour euh, def plaidoyer bi muy gratuité pose diagnostic. Mhm. jot nga wax ci seen programme la ñu fas yéene nag topp loolu benn par benn concrètement ñu bëgg a xam ci loolu wàllu wi nga xamante ni daan ngeen ko jagleel jigéen ñi rawatina jege leen mën leen saytu ci campagne dépistage bi ndax bu njëkk wàllu doxub yeete ngeen doon def. waaye tamit du tee daa ngeen ci boole camion mobile tey waaxi nandim zaatit bokkoon na ci cible yi nga xamante ni amee ngi woon ngeen ko ñu bëggoon a xam concrètement lan ngeen fa jëlee. alors waaxi nandim zaat nag xam nga yaa ngi doon wax ne euh, dañ fa def li ñuy wax ay journée de diagnostic mu nekk journée yoo xam ne daanaka mësuñu ko def defoon nañ ko benn yoon Gambie. mais bi fii si Sénégal mosuñu ko def mu nekk euh, beneen de beneen doxanin si dépistage yoo xam ne nag macha allah association cancer du sein Sénégal ñoo ko fi jëkk taxawal muy journée de diagnostic mooy journée yoo xam ne dañuy dépister mais bu ñu dépister si saa si bu ñu gisee loo xam ne daal euh, euh, xel te xel tey na mhm. ñu def loola mammographie ndax dañuy yóbbaale camion mammographie teg ko yóbbu ay radiologue indi ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci ci cancer wante tamit indi li ñuy wax anatomopathologiste ñoo xam ne loolu li ma la wax li ma waxoon si njëlbeen ba muy euh, biopsie ñoom ñoo koy def bu ko defee nag si bés bi dinañu def yooyu yëpp ba nga xam ne fii juróom-ñetti fan ba fukki fan maximum mm. dinañu wax kooku ndax dafa am cancer wala amul cancer. fi ngeen toll nii temme euh, lan ngeen fa jot seetlu ci jigéen ñi nga xamante ni ñoom ngeen demoon waaye tamit lan ngeen amoon comme objectif ci wàllu dépistage xayma lim bi ay données statistiques. waaw léegi nag ñun am nañ si mbigte lool ndax euh, laata ñuy dem foofu dañu defaloon euh, bàjjenu gox yi benn atelier. Hmm. atelier de sensibilisation. xamal leen lan mooy cancer nan lañ siy faggoo ba nga xam ne bi ñu wootee ñu bëri ñëw nañu ba ñu ñëwee tamit ah macha allah def nañ fa euh, consulté nañu deux cent quatre cinq nit. ñaari téeméer juróom-ñett fukk. voilà voilà alors si loolu def nañ fa tamit loolu mooy consultation bi nga xam ne def nañ ko ñu def tamit euh, cent quatre-vingt-quinze frottis ndax da ngay jàpp ne frottis du ñu ko defal ñëpp. kon da ngeen boole bu ween bi. en même temps ak cancer du col. waaw dépistage cancer du col ak dépistage cancer du sein defandoo. Mhm. ñu def deux cent quatre vingt cinq dépistage cancer du sein. Mhm. def cent quatre vingt cinq dépistage col. Mhm. mais loolu dañ ko def dañu def frottis. moo gën a xóot euh, IVA. moom mooy cancer wu kanam bu euh, tutu njurukaay. Mm-hmm. loolu la ñu jëkk loolu la ñu loolu si jot a def. ñu def tamit ñu mayee fa cent euh, euh, cent quarante huit mammographie. Mm-hmm. mais def fa juróomi biopsie ak juróom-ñetti cytoponction. Mm-hmm. bu ko defee nag fii ba semaine bi di jeex dinañu xam ñi ñu ñi nga xam ne. dañu nekkoon dañuy wax ay cas mhm. ndax feebar bi la am wala amuñu feebar bi mhm. ci natt ak sa jàngat ndax ànd nañu Podor ànd nañu ay Pété Galoya le nord ànd nañu tamit euh, fu bëree bari daanaka ci Sénégal ak association cancer du sein Sénégal mu bëggoon a xam tey jii nii xayma ci li ngeen doon sensibiliser booba ak léegi buñ ko doon xool ci askan wi fan lañ ci toll ci niveau d'information ak lu jëm tamit ci Euh, fàggandiku gi maanaam fekk seen bopp wàllu prévention bi vole boobu noonu lu koy gën di dooleel d'abord niveau de sensibilisation bi fan la ci askan wi toll. Euh, Moussa man yaakaar naa ne léegi euh, jigéen ñu bari ñu ngi xam si lan mooy cancer ndax dinañ may woo sax depuis bi octobre rose commencé ñu ngi ñuy woo dañ woo di ñu laaj fan la ñuy defee. ay sensibilisation ay dépistage ak loolu ak fan lañu mën a dem pour defi mammographie kon ça veut dire lan mooy di tey jigéen ñi ñu ngi ñu gën di xam lan mooy cancer ak nan lañ si war a defee nan la war a fagandikoo si cancer kon loolu yaakaar naa ne lu am solo la ndax ñun euh, mënuñu ne dañ fiy jële cancer ndax loolu mbiru yàlla la mais suñu objectif li tax ñu jóg pour taxaw temm monter association bi benn partie bi mooy xamal jigéen ñi Sénégal jigéenu Sénégal ñu xamal leen lan mooy feebaru cancer ak nan la ñuy def ba nga xam ne mu ñu mën a teel a jóg ndax alhamdulilah yàlla dogal na ne feebar feebaru cancer bu jigéen muy cancer ween ak cancer mu kanamu bu tutul njuurukaayu jigéen dafa nekk cancer yoo xam ne noo si gën a teel a jóg rek dañ koy faj te da ngay wér. Mhm. ñaata plainte ngay faral di jot wala sollicitation parce que maam jaara fi mu toll nii wuyoo nga sa turandoo mur de lamentation lañ ko mën a wax wala confidence yu ci bëree baree bëri lan la soxna yi di daj te ñu ngi amee te dundaale du jëm ci wàllu euh, feebaru cancer. bari na lool bari na lool lañuy ñuy dund jigéen ñi li ñuy dund metti na bari na mhm. ndax benn. boo jëlee jigéen ji déjà xam nga euh, turu cancer dafa diis mm-hmm. te li ma leen di wax rek ne leen cancer dafa diis mais juróomi araf rek la déjà tur bi rek jigéen ju ne ne cancer nga rek yow sa fit dem na ba pare mm-hmm. laataa ngay sa sa fit di dellu si ñu ne di benn ñaareel ba da ngay gis ay jigéen yoo xam ne ñu ngi dund feebar bi mais mënuñu ko wax parce que bu ñu ko xamalee seen seen famille wala seeni famille yu borom kër dañ leen di stigmatiser jël leen beddi leen teg de teg leen du metti yoo xam ne nga bëgg boole euh, feebar ak naqaru xol boobu loolu am na leneen li ah, malheureusement da ngay gis ay jigéen ñoo xam ne ñi ngi si biir feebar bi seen borom kër wàccaleen si diggi feebar bi loolu tamit lu si lu bari dinañu jot si plainte yooyu walla seen belle famille seeni goro ñoo leen di ñooy am euh, influence ci seen jëkkër ba nga xam ne ci seen boroom kër ba nga xam ne daanaka dañ leen di beddi mhm. loolu moom beddi bi moom problème bu rëy la mhm. te xam naa ne jigéen ñu bari loolu ñu ngi koy jooytu mhm. tey association bi ci diggante boobu bu ci tolloo accompagnement psychosocial bi naka lay demee ba xam loolu am ngeen ci taxawaay ci ñoom. bu baax bu dëgër sax ndax gis nga bureau bi fii jigéen ju ñu waa hôpital yónnee walla xam nga jigéen ñi ci seen biir bu ñu toogee hôpital di waxtaan dañuy joxante ay ay renseignement mm-hmm. léegi nag léeg dañuy jox nit sama numéro téléphone walla docteur yi ci boppam hôpital. jox sama numéro téléphone euh, sama numéro téléphone ñu ñëw ci bureau bi mhm. euh, Moussa bu ñuy ñëw très souvent dañuy jooy bu ñu ñëwee ay jooy lañu fi excès ndax xamuñu feebar bi metti na ci ñoom seen fit dem na daal mhm. alors ñun suñu responsabilité suñu wariga mooy dalal leen dañ leen di bàyyi bu ñu ñëwee dañ leen di dañ leen di bàyyi ñu toog ñu may leen ndox ñu jooy ñu may leen ndox ñu dalal leen buñ leen dalalee ba pare nag waxtaan ak ñoom hmm. wax leen lan mooy cancer ndax tamit xam nga booy faju il faut nga xam feebar bi mooy lan bu ñu jàpp rek ne cancer mooy feebar buy rey hmm. non loolu du feeb du turu feebar bi hmm. cancer nit ñi il faut ñu xam ne lu bokk ci yow la nekk ci sa yaram moo soppi ji moo soppi ji moo soppi euh, jikko wut ñeneen ñu mu àndal ci sa biir yaram pour faagaagal la bu ko defee ñoom buñ ko comprendre noonu rek tension bi day wàcc ñu waxtaan ak ñoom xamal ne leen ñun ñii ku ci mel ni man jaar nga ci ak keneen ak keneen te yàlla dimbali nañu ba nga xam ne tey jóge nañ ci kon nag ñoom dañuy gëm seen bopp bu ko defee ñu waxtaan ak ñoom dalal leen jox leen ay conseils wax leen tamit expliquer leen étape feebar bi yëpp fañ koy commencé ba fañ muy jeexee. Mhm. nan la ak effet secondaire yi ku li mel ni chimiothérapie boo koy def ni ngay sa karaw di ruusee di dem say xef sa der xaw lakk ak yooyu yëpp ak euh, waccu yeeg feebar yeeg yëpp daal li ànd ak chimio yëpp dañ leen koy wax bu ko defee ñoom si seen bopp bu ñëwee sax da koy. Euh, euh, danar bi day mhm. wàññeeku. ok si ñoom. alors ci diggante boobu dañ ni waay wopp boo ko dalalee am na lu bëri loo wàññi ci moom ci feebaram ndax boo ko dawee rek dañ naan yokk nga jàngoroom yokk nga feebaram waaye tey leneen li nga xamante ni moo ci war a topp mooy le coût de la prise en charge wàllu koppar day taxaw ndax wax ji mën na ko dalal téye ko mais boo leen leen di gunge pour ñu jot ci paj mi accès boobu noonu am na benn prix am na coût boo xamante ni moo ci nekk. mais loolu tam jote ci ba tey dafa mel ni yombul ci ñu bari. absolument loolu moom ba ñu sosee association ba léegi ñu ngi koy jooytu loolu moom dañ ko jooytu ba ba sonn ndax euh, cancer li may wax rek cancer dafa nekk feebar boo xam ne doo tëb tëb rek nga dem seeti docteur nga toog kër docteur mu saytu la daal di lay ne soxna si da nga loolu amul fenn mm-hmm. ndax danga ñëw dana gis loo xam ne dana gis bu dee ween comme ñu ngi ci canceru ween bu dee ween mu doñ mu laal donja bi ne la ah, gis naa donja demal nga defi mammographie mm-hmm. nga fay juróom junni pour def mammographie bu pare ne la dellul nga dem defal ma analyse sàngam analyse sàngam analyse sàngam loolu yëpp boo ko xaymaa dina dem ba juróom-ñeent fukki junni ba dem ba téeméeri junni. 500000 waaw ñu soog la ne danga nga cancer. xam nga déjà kooku ki nga xam ne sax boo ko ne sax soxna si am na donj bu nekk si sa ween demal nga defi mammographie mu dem sa bunt ba fa ñuy defee rajo laajte ñu ne ko juróom-ñetti junni fitam dem na ba pare bu dee amul moyen leneen lu jëngu nag topp si ginnaaw day gën a yóbbu fitam prise en charge bi moo tax feebar bi gën a ñaari ñaari yëf moo tax feebar bi gën a metti tey ñàkk xam feebar bi ak prise en charge bi bien mais leneen loo xamante ni dañ ko ci nemmeeku moo di bu nee bi def na ay jéego góorgóorlu ñu ngi wax ci chimiothérapie waaye ñu gis ni pajum cancer ginnaaw chimio wala lu jëm ci wàllu chirurgie radiothérapie ñëw fekk si la ci cent cinquante mille pour quinze cures wala yenn saa sax mën na ko jéggi ba tey ci ndoddu askan wi lay dem. Euh, gis nga loolu tey bu ñuy wax cancer dafa metti looloo tax ñu ne dafa cancer dafa metti ndax xam nga feebar boo xamee ni boo feebaree boo demee ko docteur ñu faj la te liñ lay fajee doo fay dara dina xaw a wàññi wante bu fekkee ne danga nekk da nga feebar nga war a def li ma la wax yépp analise yu yépp balaa ngay am gratuité chimiothérapie bi mais doo ñëw ndax balaa ngay ne naam ne fa ndax bunta bi nga xam ne foofu nga war a dugg pour boo duggee ba sa biir ñu ne la may nañ la faj bii bunta ba ñu ne la fayal téeméeri junni wala fayal juróom-ñaar fukki junni balaa ngay dugg yaakaar naa ne doo boo moytuwul doo dugg. mais justement est-ce que tey combat bi foofu noonu laaju ngeen xool ca njalbeen ga ba keroog muy wàcc. loolee jëm ci wàllu gratuité au lieu que ñuy jël pàcc bu demee ni chimio rek. ñun de ba ñu taxawalee association cancer du sein Sénégal ACS2 bi ko taxawalee li ñu jëkk a jooy mooy gratuité des mm-hmm. te loolu yow yaakaar naa ne. Mm-hmm. seede laaj si mën nga ko seede. Mm-hmm. Euh, bind nañu dem nañu fi sax ba bind leetar président la république. pour ñaan ko pour mu wàññi ko. pour mu may ñu gratuité des soins loolu dañ ko jooy jooyati ko ba sonn ndax ñépp xam nañu ne Sénégal góor góorgóorlu yi ñoo ëpp ndax tey boo jëlee population Sénégal xëy na 20 pour cent ñoo am accès à euh, assurance maladie. Mm-hmm. ñi ci des ñépp la yàlla xam doy na. Mm-hmm. te malheureusement lii ñu fi teg lu baax la CMU. ni CMU jëlagul. Euh, euh, cancer cancer. te am na assurance yoo xamante ni am na assurance yoo xam ne tamit. du ñu ko laal. Mhm. donc ce qui fait que tey problème bi problème bi ñu am dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy lu coût bi nga xam ne euh, dafa dafa dafa jégg dayoo. Mhm. te boo seetee boo jëlee téeméeri sénégalais xëy na. ñett wala ñeent ñoo am moyen pour faju loolu. Mhm. li si des yëpp duñ ko am. milliard bi yéen a ngi koy yëg li nga xamante ni jàpp nañ ne gouvernement bi def na ko fi ci comme effort. waaw ñu ngi sant ñu ngi leen di gërëm nag si seen milliard boobu ñu dugal. Mhm. si euh, anticancéreux yi. Mhm. mais milliard si gouvernement tuuti na de. Euh, Moussa. yaakaar naa ne bu ñu bu ñu jéemoon rek. yokk ko dinañu mën a egsi si gratuité bi naam euh, cancer rek nekkul feebar yi fi am mm-hmm. mais li cancer di jël mm-hmm. moo ëpp leneen feebar yi mm-hmm. ndax dafa am pose de diagnostic ku cancer rek bu dee am na yeneen feebar yoo xam ne booy pose de diagnostic di nga fay lii ngay fay yaakaaruma ne bari na te lii mooy mooy mooy li nga xam ne daal moo sonal nit ñi donc gratuité boobu duñ comme duñ si mën a egg. Mhm. tant que amuñu gratuité pose diagnostic nga ñëw boo defee gratuité pose diagnostic nga daal di ñëw chimiothérapie bi mu nekk gratuit loolu baax na. Mhm. mais bu bu dee koo xam ne amul moyen amu ko mënu ko mais bu paree foofu tamit day taxawaat rek. bu mhm. war a dem lijjanti ji pour opération. te opération bi du xaar de feebar bi du xaar de. Mhm. moom moom bu commencé rek moom moom moom day daal di continuer rek pour moom ndax moom li ko tax a jóg mooy faagaagal la. Mhm. kon nag moom bu amee loo xam ne buñ ko mayee occasion pour faagaagal la mu dem bés ba egg fu mu jëm. Mhm. buñ ko teelee coupé nag mooy gratuité des soins yaakaar naa ne dina ñu mën a euh, li nga xam ne. Euh, taux de pourcentage bi ñuy wax ne que ñi si ñiy faatu. Mhm. dafa bëri. Mhm. kon yaakaar naa ne dina wàññeeku. Mhm. ndax tey ñoom ñi ngi wax ne plus de dix mille cas si at mi. te sur les dix mille cas soixante dix pour cent. après nga jéem ma ko. waxal si wolof daanaka sept mille sept yi. yàlla day def li gën si ñoom. juróom kon xam nga loolu. loolu lu doy waar la daal. Mhm. donc xëy na 30 pour cent yi rek ñoom ñoo siy génn. Mhm. te si biir 30 pour cent yi boo seetee tamit xëy na vingt pour cent yi mooy ñi nga xam ne am nañu moyen 10 mhm. pour yi nag euh, euh, ñi siy gé waa 10 pour cent yi mooy ñi nga xam ne. dañ leen di dimbali mooy association yi ñoo leen di dimbali. alors tey nga gis ni ñëpp dañuy bàyyeekoo ci biir réew mi wutal si Ndakaaru ndax institut yi moom moo fi nekk te Dantec la ne. ñi ngi dem sax dans des perspectives ba ni dinañu tabax benn centre oncologie nekk fële ne la ca jam ñaaco am leneen tamit lu ñu ci rax lu ñu ko fas yéene booleel mu jëm ci wàllu euh, garab di médicament euh, lan ngeen xalaat yéen ci malaat yi nga xamante ni yéen a ngi leen di recevoir te fu ne la ñuy bàyyikoo te dem ngeen tamit fu ne ci biir réew mi gis leen anam yañ fa nekkee ak nañu mel di jóge foofu di wutal si Dakar mboo fi amul mbokk paj mi am lu mu laaj kuu bi lan ngeen xalaat ni xëy na ñooñu lool it mën na leen soulager du moment que yéen a ngi laaj ay gratuité man de ñun de si suñu gis-gis yaakaar naa ne euh, ñu créer sax si hôpitaux régionaux yi mhm. ñu def fa ay centre yu yem mhm. yu yem rek yoo xam ne dina am le minimum c'est vrai que hôpital régional yi am na nañu ay unité de mammographie mais mammographie rek doyul parce que il faut ñu xam feebar bi même bu fekkee ne amuñu ay cancérologue sur place yoo xam ne mën nañ la yóbbu ci région yi pour créer des unités de cancérologie mais ñu renforcer capacité docteur yi nga xam ne ña nga fa bu dee ci canceru jigéen gynécologue yi la mhm. bu dee ci leneen ñu seet ñoom ñoo xam nan nañ koy xam ñaa ñu xayma ñu renforcer seen capacité mm-hmm. ba nga xam ne mën nañ fa déjà ki nga xam ne ñëw na war nañ ko am na loo xam ne loo xam ne dinañ ko fa dinañ ko ko fa mën a defal mu xam ndax dafa cancer wala cancerul beneen pàcc bi mooy chimiothérapie mm-hmm. ndax dangay gis koo xam ne comme ni nga ko waxee mi ngi dëkk Matam wala Kolda wala ndaar euh, wala feneen daal mhm. ci région yi léegi kooku jox ne wax nañ ko ne dafa cancer mu war ñaar fukki fan ak benn yu nekk walla juróom-ñetti fan yu nekk mu jóge fu mu jóge sa sa sa goxam boobu ñëw dakaar pour def ci chimiothérapie mhm. loolu metti na mhm. loolu moom metti na ndax ni nga ko waxee dana mën na am kooku amu fi famille amu fi kenn. Mhm. fu muy fanaan hôpital. Mhm. ñun xam gis nañ ko koo xam ne Foundiougne la jóge woon. Mhm. Foundiougne si gannaaw Foundiougne la daa jóge di ñëw bu masaana ñëw hôpital la daan fanaan ñu signalé ñu ko ñun ñoo ko mujj jël en charge bu waree ñëw ñu jox ko paas mu ñëw am ku mu xam koo xam ne foofu lay fanaan ñun ñoo ko doon jox ndékki añ reer paas. paas bi muy jógee Foundiougne pour ñëw Dakar ak fa bi muy jëlee Dakar pour ñëw hôpital pour faju mhm. ndax amu ko mënu ko mhm. te amul feneen fu muy fu mu sukkandikoo mais euh, dégg naa euh, ñuy wax nekk bu centre de oncologie bi ñu war a defar dinañ fa def maison de vie mhm. yooyu yëpp baax na li gën mooy région bu nekk am centre de oncologie léegi nag loolu yaakaar naa ne foofu la ñu waroon a gën a jëkkee sogaa def nag centre bu mag boo xam ne cancer cancérologie yépp foofu la ñuy daje parce que tey man sama yaakaar sama xalaat rek lay wax tey bu ñu créer centre de cancérologie bu jam ñoojo bi loolu lu baax la mhm. mais nag est-ce que dinañu régler problème ñi ci biir ñi ci biir Sénégal mhm. dañuy régler problème mu ak li jege Dakar mhm. ay région de Thiès ak ñooñu dinañu am opportunité. Mhm. mais ñi nga xam ne isson sont dans le nord wala ñi nekk dans le sud nga xam ne dañu war a ñëw à chaque fois Dakar problème boobu dina teguwaat encore le même problème va se poser ça va être encore un problème de prise en charge. Mhm. ak dëkkuwaay ak leneen ak leneen ak leneen. Mhm. loolu moom yaakaar naa ne euh, dañuy ñaan. suñu autorités yi ñu mhm. jéem si def tuuti gëstu dana si baax. Mhm. ci wàllu gëstu boobu noonu wax nga sànq ci seen programme loo leen fas yéenee ñaan jiitu réew mi moom président Macky Sall pour que lu jëm ci wàllu wi nga xamante ni moo di plaidoyer bi ngeen bëgg a parce que gis ngeen ni mën na nekk que ki nga xamante ni dafa wopp am mieux vivre avec le cancer wala mieux vivre le cancer. loolu tey jii nii ngir mu am am mucc ayib ci wàllu wér-gu-yaramam lan ngeen xalaat ni moom tey jii nii war ngeen ko ñaan ngir mu mën ko def. gratuité gratuité gratuité bamtu naa ko ñetti yoon. Mhm. ndax pour mieux vivre le cancer ou mieux vivre avec le cancer il faut une bonne prise en charge. mooy gratuité ak relever plateau technique bi lu am importance la relèvement plateau technique bi moom am na importance loolu parce que dama koy wax toujours euh, damay wax ne que yàlla dimbali nañu ndax quand ñun Sénégal faculté de médecine am na lu ëpp téeméeri at yàgg na fi ba su suñuy maam nekkoon ñoo fi nekkoon euh, seen Afrique de l'Ouest faculté de médecine au Sénégal de, de, euh, de Sénégal dafa yàgg donc formé nañu si Afrique muy sawu jant ak fépp formé nañ fi ay docteurs ay médecins ay professeurs kon nag xam-xam ñàkku fi plateau technique moo ñàkk ndax boo xoolee yow dem nga dem nga Maroc def nga fa benn reportage si ni ñuy opérer cancer du sein bëggoon naa nag même reportage bi nga def ko fii bu ñu gis différence su plateau technique bi mais dafa mel ni bëccëg a guddi alors loolu moo tax ñi nit ñi di dem bitim réew mais bu ñu amoon plateau technique bu baax fii ma gis nga ni Maroc nekkee wala Tunisie nekk nit ñi di fa dem di fa def yi tourisme euh, médical kon fii Sénégal dinañu mën a def si tourisme médical fii si Sénégal mhm. parce que compétence yaa ngi fi mhm. donc ci loolu bokk na ci la ñuy fas yéene dëggal ndax euh, am nañ luñ ci xam am nañ luñ ci gis te jotoon nañ leen ko wan ay jamono ci urgence waaye tey lii programme bi ak li ngay ni fa seeni jeexalee octobre rose bi lan lay doon parce que plaidoyer bi moom wax nga ko kilifa gi ba noppi te xam naa ne dina ci bàyyi xel moom président mag Sall ndax mi ngi ñuy seetaan ay ca lan moom mooy njeexitalu programme bi ngeen fa yéene am ak euh, association cancer du sein Sénégal. waaw xam nga nag euh, depuis euh, deux mille quinze dañu am benn partenariat bu ñu tegoon ak maternité du Yeumbeul Nord. Mm-hmm. madame Sakho. que je salue au passage mhm. muy jigéen ju jàmbaare mhm. juy xeex cancer bu baax si yëmbal mhm. ba nga xam ne yëmbal moom jigéen ñi ñu bëri xam nañu lan mooy cancer ak sensibilisation dinañ fa dem incha allah le 16 octobre def fa ay consultation mais dinañ fa dellu encore le 23 octobre pour may leen ay mammographie bu loolu passé ñu nga jëm Ndar le 27 octobre ñu ngi université Gaston Gaston Berger. Mm-hmm. dañu lëkkaloo kook ak euh, association jigéen ñi liggéey université Gaston Berger pour def euh, programme bi nga xam ne mooy journée diagnostique yi foofu. Mm-hmm. dinañu dem tamit le 28 octobre toujours ci biir Ndar ñun dinañu nekk hôpital régional Saint-Louis. Mm-hmm. bu Ndar hôpital sa hôpital régional ba pour def fa tamit ay journée diagnostique. moo di que dañuy yóbbaale. suñu camion bi nga xam ne suñu partenaire ndooy radiologue associé moo ñu koy abal ak mu nekk. Mhm. ñu di ko si sant di ko gërëm bu baax. Mhm. moo ñu koy abal ñu mën may jigéen ñi ay mammographie pour li tax ñu di ko def pour ñu gën a xam lan mooy mammographie. Mhm. mën ko ñeme. donc moom daal euh, le 27 et le 28 octobre ñu ngi ndar foofu nag lañuy ñuy tëjee nag. suñu programme mu octobre rose. Mhm. Mame Diarra ñu sant ko gërëm ko di rafetlu seen collaboration ak 2S bàyyi la nga tàggatoo ak euh, téléspectateur. maa ngi di euh, balaa may tàggatoo ak euh, yi boo leen ma ko mayee bëgg naa remercier sant suñu benn sponsor muy monsieur Abdoulaye Dia. mu Sénico bi nga xam ne ñetti atu yàlla ngi nii mi ngi ñuy accompagner si prise en charge malade yi tey association cancer du sein bu dee am nañu mën nañu di jël ay opération di fayal ay malade ay opération di leen fayal ay pose de diagnostic di leen fayal ay radiothérapie si sponsor yi nga xam ne moom moo ñu jàppale bu baax ñu ngi leen ak yi ñeneen ak ñeneen mënuma lib ñëpp mais dinañu joxe dinañu am occasion toog remercier sponsor yëpp mm-hmm. mais dañu bëggoon daal ki nga xam ne moo gën a fësle muy Sénico ñu di leen remercier di remercier euh, population bi di sant di gërëm di dolli gërëm 2STV ci suñu partenariat bii nga xam ne ñu ngi ko taxawal te bañaluñ ñu dara ci seen biir euh, télévision fu ñu leen woo ñu wuyuñu xaaruñu octobre rose pour ñu wuy si ñu pour jàppale ñu si liggéey bi nga xam ne askan bi yépp la la la la amal important ci teg fondation. ah fondation bi man maa ngi sa biir moom. waaw fondation bi moom. <laughs> maa nga sa biir moom. incha allah rabbi donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di fàttali jigéen ñi ne leen na ñuy saytu seen bopp. dañu dem defi seen mammographie te di xool tamit di dem di defi li ñuy wax frottis ñu dem di ko yi loolu daal laay euh, bàyyee euh, lay yóbbante téléspectateurs yi di gërëm di sant ñëpp suñu sponsor yëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant asalaamualeykum. voilà kon euh, mi ngoog présidente ñu sant ko gërëm ko moom Mame Diarra Gueye Kébé. ci disponibilité bi waaye euh, ci volonté bi nga xamante ni toppatoo sa bopp rek dafa doy waaye boo ci boolee askan donc loolu amuñu leen dul jaajëfal leen ndaxte ñoom it ñu ngi bay seen waar ci wàllu wér-gu-yaram jaamu yàlla la. waaye tamit di la wax ni la ci élan boobu la ñu am dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise initié avec le président El Hadj fondation 2S santé pour mën a gën a aussi accompagner gën a mën a dooleel secteur bu mel noonu. kon on a besoin de cela parce que mécénat au service de la santé bokk na ci luy dimbali te bokk na ci li nga xamante ni dina jàppale bu baax askan wi ndaxte loole lu am solo la te farata la ndax lépp mënuñu ko xaar ci gouvernement kon am na volonté yoo xamante ni il faut que ñuy manifester mbokk ñu sant leen gërëm leen beneen numéro ci beneen numéro urgence jaa ngeen